Eh, di ko ci ñaanal tawfiq ak ndimbal di nuyu wa jotaay bi yépp di leen jégalu comme niñ ko waxee di leen jotale tamit ngantul sani Ousmane ci fan yi dafa nekk ay yitte waaye mi ngi dellusiwaat di siyaare ñëpp eh, mu am lu ñu bëgg a leeral tuuti ci wàllu eh, tawatu jalis bi nga xam ne réew maa ngi koy jàmbat àdduna bépp di ko jàmbat ak loolu mbokk mi laaj ci wàllu daakaandey werek insa allahu ci njariñ yi mu am ñu tudd ca lenn xanaa sax duñ mën a tudd lépp tawat ju mën a doon lu yàlla bind la bi ko yàlla bindee tamit bind na lu koy faj te jumtukaay yi koy faj la sunu borom njëkk bind bu ñu delloo ci tafsir ibnu abbas bi muy wax wa xadara fiha aqwaataha fi arbaati ayaamin sawaan lishaa'iliin wax na ne sunu boroom bind na jumtukaay yi mu war a jox nit ñeenti junniy at te bindagul nit ñi kon yàlla lépp parawaar na ko comme ni mu binde dee njëkk muy bind dund euh, ñu xam ne tawat ci dogal sunu boroom yi la bokk comme ni ci wër wér bokke euh, ci biir loolu amul benn jàngoro ci jàngoro yi bu yàlla bind te bindalu garab bu koy faj maanaam bépp euh, kama boo xam ne docteur yee ko liggéey ci ginnaaw ndimbalul yàlla wala kay faj ci wàllu fajinu wolof wala fajinu cosaan ak nit ñu nekk seenu làkk loolu lépp sunu borom a ko dogal moo ko bind te tawat boo mën di gis yàlla bind na garab gu koy faj amul benn tawat lu dul ne am na garab bu koy faj loolu yonente bi sallallahu alayhi moo ko jàngale euh, te itam bu dee ci euh, ñi nga xam ne ay jullit lañ tawat yu bare bare li tax sunu borom bi dañ ko teg léeg-léeg ay nattu la ngir bëgg leen a yokkal ay daraja ak sippil leen ay tooñaange léeg-léeg yàlla wéral tawat soosu ci coobareem wala mu wéral ko ci euh, garab ngir wane xikmaam xam-xam wala mu wéral ko ngir katanam yonente yalla musa alayhi salam bi mu wéradee suñu borom fajj ko sa muy ko genn garab mu tawataat suñu borom ne ko demal nga wuti garab nga faju ji mu dem wuti garab daal faju ji daal di waaw tawataat tok tok tok sunu borom waxu ko dara manam mu jëfandikoo garab yi mu daan jëfandikoo wérut mu tok tok wérut comme mom la daan laaj ndax wa kalamallahu musa taklima eh, dafa daan bari lu mi laaj ci laaj yoy ci la dem ba lu bare bare alquran diko ko eh, sunu borom day mas waqanta ak moom eh, bi mu laajee sunu borom lu waral lolou sunu borom nako ko nga tawat ma fajla sa garab xam nga jékki-jékki rek wéral la dama laa jubloo woon sama kàttan ne lu ne mën naa ko te kenn duma ci dimbali waaw lu ne mën naa ko def aajowu ma dimbal waaw bi nga tawataatee ma tegtal la ay garab ay ñax moo sax am na ñu wax ne laurier la woon moo tax lenn ci borom xam-xam yi tudde ko waraxu sayduna Muusa alayhi salaam ak laurier di mu amee solo ngeen koy gis ci marché bi Euh, ne ko li ma ci jubloon mooy dama laa bëgg jàngal ne lu mu bind lu nekk am na lu tax mooy xekkam am na lu ma ci denc nit ni mu toll ci dëgëraay kàttan ñax su tuuti di ko faj waaw ñax su tuuti du ko faj garab yi bari lool te wóote benn bu nekk am lu muy faj loo xam ne xañ na morom di morom ja di ko faj am ci yun bokkule mun ko dama laa bëgg jàngal xam-xam ne binduma dara ci neen lu ma bind rek maa xalaqa llaahu salaka illaa bil xaq am na lu tax ma bind ko bi nga tawataatee nag dem ca toog toog fajuma la nga dem ca garab ga wéeroo dama laa bëgg a jàngal sama sañ-sañ maanaam masiati al masiatul ilahiya wan na ne lu ma def mën naa koo dindi te du mujj fenn waaw li ma bind ngir denc ci xam-xam su ma neexee dindi ko moo tax ku ma may dara su ma neexee nangu ko du mujj fenn ku ma jox nguur ak yépp ci yem kon ci biir loolu ñu xam ne tawat yëpp yàlla bind na lu koy faj léeg-léeg suñu boroom wéral nit ki saa garab waaw léegi gis koo xam ne li koy dal kenn du xam lu koy faj fekk na dara dalu ko yàlla ci boppam moo ko jubloo tiital bu dee jullit bi ak jublu koo bàyyiloo xel ëllëg ak jublu koo def xelam ci moom ak fiir ci moom day am ci nit ñi ñoo xam lañu jàmbat fu ñu dem tamit duñu gis dara fekk na loola lu sunu borom dox la seen diggante ak ñoom la ngir jublu leen a bàyyi loo xel ci lu bari waaw euh, bu dee ab jullit lépp lu ko dal loolu dogal sunu borom la am na lu mu ci jublu am na natu bu mu ci kii léeg-léeg tamit nit ki feebar daal ko te mu sabab ko mooy jëf jëfandikoo lu koy lor wala xeet yu mel noonu euh, yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne jàkkaarloo julli ñu benn bis xadis boobu ñu ngi jël ko Abdullah ibnu Anas mu jële ko ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu wax ne ayukum yuhibbu ay yasia jismuhu fala yasxamu kan moo bëgg a wér ping te dara du ko jot benn feebar saxaaba yi na ko kulluna ya rasulallahi yonent bi ne leen saxaaba yi ne ko ñun koy ñun ñëpp bëgg nañu wér te bëggul dara jot ñu mu ne leen a tuhibbuuna an takunu kal xamiri sawalati ala tuhibbuuna أن تكونوا أصحاب البلايا وأصحاب الكفارات والذي بحثني بالحق نبيا إن الرجل لتكونن له الدرجة في الجنة فلا يبلغها بشيء من حمله فيبتليه الله تعالى ليبلغ درجة لا يبلغها بحمله أو كما قال عليه الصلاة والسلام saxaaba yi nag ñun ñëpp bëgg wér mu ne leen euh, xanaa bëggu leen nekk ngeen di xeet woo xam ne yéen a yàlla di nattu ay musiba yu metti ngir lan ngir sippil leen seeni bàkkaar waaw te maa ngi giñ ci yàlla mi ma yónni ne léeg gis nit feebar lu ko waral yàlla daf koo bëggal ay daraja yu kawe ci àjjana te mënta jëf lu ko fa yóbbu suma borom nag toog ak ab feebar boo xam ne ca lay jote àjjana joojee mu del wax ni ma min muslimin yamrudu maradan illa xatta allahu min xataayaahu kama taxuttu asajaratu waraqaha mu ne amul benn jullit buy feebar lu dul ne feebar boobu yàlla daf caa jublu dindi ay ñaawteefam comme ni nga xamee garab noonu ruusale ay xobam euh, mu dellu wax ne moom rasulullahi sallallahu alayhi wa la tasalu lausabu walmasaibu bihabdin hatta tatrukahu ka fiddatin baydai anaqiyati almusaffati mu ne e, musiba yiindi seen ak mboolem lay dal ab jaam bu dee ab julit dal gam koy dal lañ ci jul mooy da koy dal di ko dal ba day mujj set ci ay bàkkaar set wicc comme ni xaalis bu wex mel kom xaalis ni ñu koy defar ba mu set wicc noonu nga xam ne li koo gis xam ne defar nañ ko ba lenn xaalis bu bees tàq ni mel mu ne noonu la nit ki nga xam ne ay musiba wala ay feebar dañ koy dal noonu lay sete ci ay bàkkaar ak i yeneen ak yeneen ba mel ni xaalis bu bees tàq nga xam ne ku ko xool xam ne lii lu bees tàq la nga xam ne li koo xool xam ne defar nañ ko kon feebar yu bare bare mbokk yi léeg-léeg sunu borom bu dee julli bi teg gim koy teg da see jublu sipp ay ñaawteefam dindi ay musibaam ah tamit yëkkatul ko ay daraja ci àjjana defal ko ay xéewale ki taraanga kon loolu nañ ci bàyyi xel bu baax a baax eh, ci wàllu feebar nag li ma ci waxoon moo di ne feebar bu man di doon bu mën a xew ci àddina rek yàlla bind na garab gu koy faj loolu yonent bi nee na alayhi salaatu wasalaam eh, tadaawoo fa inna allasi ansala addaa ansala adawaa nañendi wut ay saafara deneen faju ci garab yi ndax yàlla mi bind jàngoro moo bind e, wadu nas waaw moo bind garab yi koy faj bépp feebar bu ngeen gis na ngeen ko jéem a faj ndax yàlla bind na garab gu koy faj waaw mu dellu wax ne ma ansala allahu daa an illa walahu dawa un harafahu man harafahu wa jahilahu man jahilah eh, mu ne sunu borom amul benn jàngoro bu yàlla bind lu ne bind na garab gu koy faj benn am nañu gëstu ba xam ko di ko di ci faj am nañ ña ko ko am xam jëmuñ xam dara moo ñu ko kon bépp feebar boo xam nit doomu aadama dafa taxaw ci kaw suuf si naan mëne su ko faj loola ay waxi boppam la waxi sunu borom mi nga xam ne asa jalla moo bind jaam ñi moom leen doo wax yonenteem bu tedd bi nga xam ne moom la yàlla yónni te wa ko yantiqu anil hawa kon feebar yëpp bu mu mën doon ak bu mën a feeñ yi feeñagun yëpp ak yi feeñagun tey ñëw bu mu ci mën a doon sunu borom bind na garab gu koy faj benn ñu gëstu ba àgg ci xam ko walla ñu umpule ko mhm. kon loolu lu mat a bàyyi xel la ci wàllu nag li ma doon wax ci wàllu jalis bi nga xam ne lëmme na adduna bi ba nit ñi kenn ku nekk di ci euh, ñu bari sax fi mu ne nanguñ ko tudd feebar bi dañ naan feebar bu bon bi wala ñu ne léeg-léeg nit faatu sax ñu ne feebar bon bee ko daloon jàpp na suñu tuddee tur wa da leen di dal déedéet lii daal nekkul ci tudd ay tur ba ñu tudd ay tur ay sabab rek la sabab bi tamit yàlla mi ko def mën na koy dindi te bind na lu koy dindi feebaru jalis moo di ne kilaay dañuy am problème jafe-jafe ci wàllu segg deret ji muy échec fekkoo foofu nag nit ki mën na yëg mettit woo xam ne ak gisaay goo xam ne day mujj deret ji dootul circuler ci yaram bi mën na caa jeeg di ne wala mu tuuti wala deret di di génn ba mujj ci faatu loolu tamit am na yeneen i feebar yu koy def feebaru res yi dañ koy def feebaru xol yi noonu feebaru cancer kasaalika waaye yooyu yëpp am na lu koy faj ci gàttal bépp feebar bu ngeen dégg ñu ne kenn mënu koo faj dañuy wax loolu yonent bi dàq na ko sunu borom dàq na ko ndax indi na ci alxuraan luy faj ay xam-xam yuy tegtale luy faj yonent bi sallallahu alayhi wa sallam alayhi salaatu jàngile ko euh, bépp feebar ak feebar réew mu mën nekk walla nit ku mën di dal ne nit ki yëg ne am na lu koy faj waaw feebar yi ñu wax yëpp na naan mëneesu koo faj laaj bii doo koy faj laaj bii rek laaj bii ñu xam laaj fi ni ne feebar bu mu mënta faj moom amul ñuy siiwal ñooy siiwal ci kaw rek waaye feebar yi ngay dégg yépp laaj mën na koo faj waaw ci wàllu ñu xam ne feebaru jalis boobu feebar la comme feebar yi dal nit ñi day dal nit muy faatu day dal nit muy wér comme ni ki yeneen feebar yi nga xam ne dañuy dal nit ñi ñuy faatu di dal nit ñi ñuy wér li ko gën yokk nag ci tiital ñi mooy def gi ñu ko def ci xel nit ñi ma ya daa garaaw nga xam ne léegi comme daal da ngay na ne yow dootoo dund loolu rek day rey nit waaw jàpp ne doo wér rek feebar bu rëy rëy la jaam lu ko dal na xam ne mën naa wér ci coobale sunu borom subhanahu wa taala feebaru jalis boobu garab yi tubaab yi liggéey du ma ne mënuñu koo faj waaw xañ na am na ñu ñu faj xañ na am na ñu ko jox mu calmer leen ak machine yi nga xam ne ñoo ñooy wóotul liggéey boobu Euh, waaye daakaande wereg bii ñu xam waaw xam nga li ñuy tudde asimqul arab yi asimqul arab yi dañ koy wax jublu ci njooy njooy liquide yi génn ci garab yi waaye dëgg dëgg asimqul arab yi mooy daakaande wereg ci docteur yu mag yu njëkk yeeg yépp ci am am na ñeneen ñu koy wax jublu ci euh, ci cuuraayu liba mooy liba bi ñuy wax léegi cuuraayu liba mais dëgg la cuuraayu liba mënees na cee faj jalis waaye simqul arab yi bi dëgg dëgg dëgg dëgg mooy werek ci ñu ko xam cosaan bi cuuraayu liba boobu tamit ñaari façon la dafa am lu ñu tudde liba dakkar mooy bi weex tàll bi noonu te jafe te seer waaye loolu lu ko gën moom tamit noonu la mën a faj defe naa am na ko doon jàmbat ci mbokk yi dënn buy metti wala jafé jafé ci walu noy buy noy muy taj wala dënn buy tang di riir wala sëqat soo xam ta wér surtout sëqat yi nga xam ne ñetti façon sëqat yi mooy sëqat bu garaaw bi nga xam ne ñëpp jàpp nañ moom tamit comme daal kasaalika waaye am façon boo xam soj da nga koy waral wala tooy ju metti am beneen façon bohamne. boo xam ne xëtër yi ñooy solu ndox nga gis léeg-léeg comme bu demee optal ñu bënn fi tolloog faar gi ngir leen génne ndox moomu waaye façon yooyu yëpp li ba boobu da koy faj waaw gis nga sëq sutaa deñ wala jafe-jafe dënn wala nooy yoo xam dafa aju ci xëtër yi nga xam ne xëtër yi ñu war a xëcc ko delloo amuñ ko naa wutal euh, cuuraayu li ba bàkkaar boobu nga dëbb ko ba mu nekk suñu soo xëyee jël ko def ci kaas baxal ndox sotti ci naan su ngoonee nga def noonu. léegi tey mu arrêté loolu waaw kon mbokk mi doon jàmbat sëq boobu nga xam ne bu ko dikkalee ba xamante fu mu nekk nga gis ñoo xam ne sëq boobu bu leen dalee surtout bu bon bi dañuy dem ba dañuy jeex takk wow koŋ te mën na dal ci daaneel ci semaine rek yóbbu leen foofu nañu jëfandikoo libaar Dakar boobu tey nañ ko vérifié ba xam ne original bi la waaw parce que original bi la jubloo wax ñu bari nag dañ koy jaawale. original bi nekk Sénégal nag ak bi nekk ci réewi arab yi léeg-léeg xaw wut waaye du ci dara loolu ca wuuteeg suuf yi la ak fa ñuy waaye lépp original la waaye original bi moom day faj jafe-jafe dënn yi wala sëqal nga xam ne ñëpp dañoo jàpp ne kenn mënatu koo faj da baax la moom li ba boobu am na yeneen i ngëneel ak yeneen mi faj bari nag waaye dama ko tudd noonu eh, wàllu jalis bi nag simqul arabi yi ne buñ ko masaana wax. ñu ci jublu daakaane wer gi ñu xam nga xam ne ñu bari tey def ci daal rek pour mu prier lañ ci xam wala def ci yére pour gome ko wala def ko ci euh, laalo am na leneen lu man lu gën a gaaw te gën a mat aajo yittewoo def muy affaire du jalis bii ñi ñu xam nun jalis mas na a dal te ñu wéri piñ waxuma calme de ak monteel leneen wala sans rien yi déedéet daakaane wer bii moo leen faj waaw liñ ci jële fii sénégal di ko import di ko yóbbu bitim réew kenn nu mu toll defe bu yeggu rek sama waa ni am na sama benn euh, ku ñu wax sëriñ Salif Fall te di ko jaay dëkk Dakar jënd nañu fi lu toll juróom benn fukki tonn yóbbu ko te yàgg nañ ko wutsi tamit ci réew mi fii ci Sénégal ak fu mel ne Soudan ci jamono Cheikh Saliou defe naa am na ci benn naar bu fu wutsi woon sax lu bëree bëri loo xam ne bi ko sëriñ bi laaj mu wax ci ay yu bëree bëri ñun booba sax xañ na gëstu yi demaguñ ci noonu waaye wi rek boobu mbokk yi maanaam moom problème mu deret priwa defar deret ji ak dimbali kilaa yooyu ba seyal xeer ya fa nekk ak delloo ko ci na ko yàlla binde woon ak defar wàllu sadit surtout sadit problème mu sadit yii wutal daakaanday we rek nga dëbb ba mu nekk sunguf soo xëyee baxal sa kaasu ndox ba mu bax ci baraada nga cubb kudd sotti ci kaas bi sotti ci ndox moomu bàyyi ko ba ba mu kii nga yëngal naan naa ndox mi nga xool suba ngoon waaw te moom amul benn lu ñu lor lu dul ne su ëppee ci nit ki kante bu li ngay xamal ne kante bi ngay jël ëpp na mooy bu la nar a la rek xamal ne li ngay jël la ëpp nga wàññi ko waaye amul la ne nu def te itam taw nangu na bépp tawat tawat boo man di am xam nga am na ci garab yoo xam ne baax nañu mais léeg-léeg nga am tawat bom boo ko amee duñ bañ dañuy bañ nga jël ko wala boo faaw nga jël ci lu yam wala nga di ko eh, amal ab diir daakaane rek amul loolu tawat boo man di yor man nga koo jëfandikoo jigen ñe goor ñi xalé mag man nañ koy jëfëndiko mom ben fenn rek lañ wax na man na indi jeexit moy su fekke liñ ci jël da ëpp man na am mu séra loola kon so koy jël bëy na yaa ngi seere xamal ne quantité biñ ci jël mu ëpp nga wañiko bo doon jël ñaari kuddu jëlal kuddu soo ko danaan ñaanal suba bayi ngon so jël kuddu mag wañiko mom bu ëppé rek man na indi séra té itam loolu du ñëpp la koy def waye amul leneen lu mi def am na ñoo xam ne àggoon nañ ci feebaru jalis ba semaine bu nekk ñu raxas leen dara gi ñaari yoon xam ngeen ko loolu dansere na te biñ ko jëfandikoo dañoo wir wir laa wir teret lañ def waaw matu liñ ko jël teret naa weer lañ ko jël ba ñu dellu bañ leen seetee gis ne tawas si ko na bu doon cent pour cent parce que mi ngi dagg par vingt pour cent par